comme camarade gars yaa ngi nii ah. après deux mois séquestration arbitraire libre nañ ah incha allah Ousmane Sarr libre na Bayna Gueye Ahmad Sarang Diallo ah. ah. gis nga le combat continue incha allah. gis nga de personne ne na ci loolu. après deux mois séquestration arbitraire libre nañ ah incha allah Ousmane Sarr libre na Bayna Gueye Ahmad Sarang Diallo ah. ah. gis nga la combat continue incha allah. gis nga de personne ne peut nous personne bu ñu waaw Macky Sall tuuti na ci